maa leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. man maa ngi tudd Anta Dieye dégg nekk bokk AFP bokk aussi si membre de cadres de la l'AFP dëkk ci région de Kaolack département de Nioro dëkk bi ñu wax Koutango. waa suñu présence fii je pense que ne warul bett kenn parce que ku wax UREK wax région de Kaolack et ku wax Anta Dieye xam ko ne moom mook étudiants yi mburu ak soow lañ ni ko gars yi di waxee. yàlla daf ma booleek étudiants yi ma bokk ak ñoom nekkoon ñoom ak ñoom université fii ñuy organiser ndogu tuddee ko Ousmane Noël Ousmane Noël yàlla boole maak moom mu doon sama góor sama xarit ñuy partagé lu bëri ñu bokk Kaolack bokk aussi suñu sëriñ ci sëriñ Babacar Si Malick ñu tuddee ko lii nag mu woo ma ne ma su ma sañoon nga ñëw ànd ak sama délégation ñu ànd dem université ma ne ko boo ma woowul sax man bu fekkee ne lu région de Kaolack la rek war naa mën a ñëw surtout yow boo ma woowee ne ma ñëwal ñu dem nga gunge ma looloo ñu tax ñu ñëw fii tey ci ndogu li partagé ko ak étudiants yi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Kaolack en tout cas je pense que ne appel bi Ousmane wax na ko ba pare parce que nee bala balaa ngaa xam ne région de Kaolack am na ay autorité campagne jot bu campagne jotee Kaolack day fees dell wala président Macky Sall war fa ñëw ni Ousmane ñëw def tey jàppale étudiants yi fii nii joxoon leen un million démb mu ñëw yeewal lañ nag tey mu jox leen xaalis bu bëri pour ñu organiser ndëggu je pense que ne directeur général boo xam ne mu ngi nekk ci région de Kaolack war nga mën def pareil ministre boo xam ne yaa ngi région de Kaolack mun nga def pareil mais ñi nga xam ne sax politique guñ nekk ay entrepreneur nekk ay bonne volonté man antami bu ma yàlla suturloo ma am benn salaire bu ndaw weer peut-être mën na dee ma ñëw fi doxantu ji région de Kaolack nekk fi ministre de la République nekk fi président de la République suñu honneur lay doon suñu fierté donc di lancer appel autorités yi que ne nañu gëstuwaat université gëstuwaat ndaw yi nga xam ne dëkk bi métti na dund université yombul lépp lu ñu am yàlla moo leen ko jox mais yàlla daf ko teg seen loxo pour ñoom ñu dimbale si jaamu yàlla yi te jaamu yàlla yi étudiants yi dañ ci bokk parce que dañuy sàkku xam-xam bu ñu amee xam-xam ñooy diriger réew mi donc autorités yi ñu ngi leen lancer encore une fois ñu ñëw ñu jàppale suñu frères yi nga xam ne ñoo nekk fii nii temps yële étudiants yu département Nioro commune Nioro dañu amoon journée tuddee ma ko ma leen man sama secret na la mooy man buntu directeur général bu ma dem fëgg dina ma tijjil buntu ministre bu ma dem fëgg dina ma tijjil ñëpp xam nañ fa ma far du ma ko nëbbu AFP la bokk waaye ku APR ku ma dem ku nekkul APR su ma la fëggee di nga ma siggil parce que am na kóllëre boo xam ne dox na sama diggante ak ñoom mu doon loo xam ne fullal la ak ngor ak euh, dignité moo ko lar du ma dem ci kenn di la ñaan mais su étudiants yi soxlawee su ma ñëwee tey si benn directeur général na ko jàppale étudiants yi dina ko def parce que séq naa ko ak moom donc man dama jàpp ne waxuma sax étudiant mais man su ma nit soxlawee rek yàlla peut-être ma tollu ma nee na ñi aw ma yenn yi mais su nit ñi ne antale parce que yàlla moo tax donc bu ma étudiant yi soxlawee je pense que da war naa bàyyi li may def yëpp ma ñëw rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk département de Nioro mais aussi région de Kaolack man nee naa lañ heure bu ma soxlaa sañu ma wax déedéet li ma war rek mooy wax waaw ma ñëw bokk ak ñoom fii assister partage ak ñoom li nga xam ne ñu ngi koy dund parce que ëllëg yàlla rek moo xam kat mooy jëriñ ëllëg te yàlla parfois bu ñu jiitalee il faut que aussi ñu koy wax na ko lépp loo ñu jox ak lépp loo teg suñuy suñuy loxo rek ñu ngi koy séq ak jaamu yàlla ñu ngi koy séq ak suñuy frère ñu ngi koy séq ak suñuy sœur donc man nañu xam ne képp ku ma woo que ça soit ngay politique ou pas nga bokk mouvance ou opposition mais naka nekk ndaw soxla Anta Anta mu ngi fii disponible pare pour wuyu si la. dernier moom mooy remercier étudiants yi di leen wax ñu gën a góorgóorlu te xam ne li mag ñi dañ koy wax jàng méttiwul jàng yàggul métti na mais yàggul. man je me rappelle 2012 la am bac ba ñuy fal Macky Sall 2017 ma am sama master de génn université 5 ans laa fi def génn yàlla sutur la ñu am si lu ñu jàpp ñoom aussi bu ñu fi nekkee dina métti dina tar parce que ñun lu nekk dañ leen ko université fii mais am na loo xam ne benn jom boo xam ne ñun Saalum Saalum yàlla dañu ko may keroog nee naa leen ko ñun dañu am ngor am dignité te suñu demee fenn Sénégal yi xam ne ni fii ñu ngi fi donc ñoom nañ góorgóorlu xam fi ñu jógee parce que man sama exemple lay joxe dëkk ba ma nekk amul sax courant donc ci àll lañ ne damay dem tool di bay bu yàlla defee ñu ñëw université mën a góorgóorlu ba man a euh, lu ñu soxla woon ñu am ko ñu génn ñoom aussi nañu xool si ñun xool si ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñoo ñëwoon avant ñun ni ñu def ba góorgóorlu ba génn parce que dara yomb lépp sacrifice la nañu góorgóorlu xam ne heure bu ñu soxlaa rek ñun on sera là mais que nañ xam ne jàng euh, yombul et que Sénégal dafa compter si ñoom loolu laa amoon li ma wax di remercier encore une fois Noël ci euh, confiance bi nga xam ne am na ko si ñun suy def activité boole ñu si encore di wax ne du politique du dara mais ñoo bokk Saalum ba pare kóllëre goo xam ne am na sama diggante ak moom donc nit bu la yëgee nag bu soxlawee nit ñi tuddee ko dara yoon la pour man ma ñëw ma accompagner ko. waaw Equivox TV maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne nag man maay directeur général Equivox TV alors bi mooy tele bu baax bi en ligne dem leen ngeen dugg abonné wu que ce soit muy Facebook. ci plateforme réseaux sociaux yëpp ngeen dem fa wala ngeen abonné wu wala di dem di gérer ma ngi noonu di la gërëm di la sant bu baax a